taar ba newoon ca Mustapha moo nekk it ci mii tafa wér ga newoon te Mustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Mustapha mosula war telum la wax loola la nar moom lun la dig faye ko bar kenn mësu ko gis mu bangam yem na xadiimal Mustapha yow mii ñu tudde Mustapha yaa jëf lu jommal surafa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 te du am ngor gi nga am ji jagle yow rek a ko am aminatoo jur Mustapha amintaloo jur mi tafa kon mee tafa may mi tafa li tax mu sangaay kemam madina geeg taayif kële tuubaa giléeg taayif kile meetar yi ñoo ko tollale kum neex nga dem natti ba taar ba newoon ca Mustapha moo nekk it ci mii tafaa wér newoon ca Moustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Moustapha mosu la war telum la wax loola la nar moom lun la dig faye ko bar kenn mosu koo gis mu bangam bu dee ci taar moo taarixu bayti de moom ci gàttal sëñ Tayru Asan Njaay moo sañ koon bayti sëñ Tayru Asan Njaay nag ba sëñ Touba goree dëkk bi ba bay fii ba mu seet wecc sëñ Darou Son Ndiaye la woo ba mu ñëw mu ne ko takkal ma ab néeg mu daal di koy takkaloo néeg bi ba mu ko takkal ku néeg ba noppi mu daal di koy làkkloo kër gi làkkum ngeer ba mu ba noppi mu ne ko dugal ma ci biir defal ma ci xalwatu ba sëñ Darou def na ci xalwatu weer bu topp. wax nañ ne fukki fan la waaye weer wi daal topp na daal yàlla dogal nag mu nekk ci bi mu génnee nag sëñ Touba doog cee dugal boppam ba def fi juróomi at juróom-ñaari at sëñ Touba sëñ Touba def na juróom-ñaari at ci néeg bi waaw néeg bi def na juróom-ñaari at yàlla dogal nag jàkk ji xëy na moom ngeen romb moo doon jàkkaam jum daan jullee daan fi def waxtu juróom yëpp fi la daan jullee bi mu demee ba ba toll ci juróom-ñaari at koor gi fi mujj woor loolu def lixtikaaf ci jàkk jooju yi jàkka jooju nag fi la ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa foofu la ko fekk. mu ko fekkee nag sëriñ bi moom itteem yëpp bëgg a bokk ci àndandoo yi ànd ak yontu bi salaahu salaam yontu bi xamal ko ne ko mboolem ñi ma feeñu ñëpp day bëgg nañu ko ba ku ma ci feeñu ko ne rek dangay bëgg ànd ànd ci mbooloo mi waaye nag lay tax nga ànd ci mbooloo mi day lu jafe lay doon loo nii saay yi buñ la ko wanee doo ci dugg ba ba kenn daal ko yenoo kon daal ba yóbbu ko amagut waaw sëñ bi na ko nag man day ànd ci rek laa bëgg ba mu ko bëggoon bëggu na ko takkal sax garaatu xut bu samaan waaye sëñ bi xamal ko ne ko moom bokk ci àndandoo yi rek la bëgg moom mooy itteem yontu bi doo ko wax nag li koy may ak li koy xañ bi mu eggalee sëñ bi ne ko nag man sekkuma sama ruug yi ba xam lu mu attan waaye lu sama ruug yi attan sans jom dana ko dégg loolu nag ba ko ko waxanteeg yontu ba noppi nag yontu bi nag ne ko nag léegi li nga jaayante woon am nga ko may nañ la ko waaye bi ñu ko mayee nag dëkki moom da koy génn da koy génn. waa bi sëriñ fii la jógee. waaw fii la jógee fii la jógee daal dem Mbacke Bari Mbacke Bari ba mu ko sañcee yontu bi moo na ko dañoo aar dëkk bi aw ay du la fekk noonu yi noonu yi war a jëfandiku ci yow it duñ fi fekk kon nag dangay ngay génn dëkk bi loolu moo waral mu dikk Mbacke mu dem Mbacke Bari ba dafa juróom benn juróom maanaam weer la fa def sawaal sul xiidati sul ijjati mu aram yenti weer yooyu la fa am ba mu dugg ci weeru safar wi rek ci la jàpp fukki fan ak juróom ñett war a dem ci ci tubaab bi fekk booba yónni na maam Thierno ba mu demee Ndar borom Ndar xamal ko yebal naa soldat ya koy jàppi ndax dañ ko woo ay yoon yoon ñukkut maam Thierno xamal ko ne ko benn bataaxal bu ko mën a woo ma a woo wala kenn koo mas a woo daal ah, ak siwul foofu ci moom mu ne ko nag jàpp na yéen borom Ndar xamal ko ne ko jàpp na yow fa nga moom moom nga jóge waaw ci moom nga jóge maam maam Thierno daal fa jóge dikk ba dikkee Louga nag la ba pare aw fas nag sëñ Mor ñaan bu nguñure ñaan moo ko jox fasu yafal yafal bi yetti at ne ko ne ko fas yi du tërë du tërë du tërëf mu war fasul daal di Mbàkke Bari ba mu demee Mbàkke Bari dajanteeg bët di set fekk sëñ bi julli ba fajar ba ba ba julli si fajar ba bagage am yëpp teg ko ci buntu baga ci ci buntu jàkka ji bi sëñ bi dikkee yi dana wax ne maam Thierno ñu ne ñëw mu daal dugg ci jàkk ji bi mu sëlmalee nag génn fekk maam Thierno taxaw mu ko ñëw nga mu ne ñëw naa. léegi mu ne ko nag damay liggéey rek saa njaboot gi laa bëgg dénk muy muy sëñ Fallou sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou booba ñoom ñaar rek ñoo fi nekk ci ay euh, doom yu góor. waaw yàlla dogal nag maanaam mu daal euh, ma maam Thierno du ko bëgg li nettali yoonam mu ne ko. big ba nga taxawé ci lugo ca xorandoo mi doon dox ci say tànk boobu maa ngi jaloog ñoom daanaka nag jëru maa wax dara jëru maa wax ndax bi nga taxawé ci lugo Louga xorandoo mi doon dox say tànk boobu maa ngi ak ñom daan na sama njaboot gi la la bëgg dink dénk fa foofu loxo mi teg ci bop señ Moudou mustafa ne ko dink na la yalla ak yonent bi tek dink na la señ sa Baye Thierno wax loolu señ Fallou dal di war ca façon nak biñ joxee tuuti mu woowaat leen waxaat ak ñoom yeneen kàddu yoo xëy nii ñoom la ko waxal. yàlla def na mu daal fay mu daal fay mu daal di dugg daal di dugg ca fekk maam Abdoulou moo ko jël si. ndax loolu it siiw na ndax sëñ Fallou wax na ko sëñ Fallou nee na maam Abdoulou rek moo ànd ak ab benn soldaar ñu jóge jeewal dikk ko jël si sëñ euh, sëñ jël si euh, sëñ Touba. waaw ñoom ñaar ñetti fas rek ñoom booba jeewal la ñu nekk di ko fa xaar. yàlla dem nag maam Abdou Lo ànd ak benn soldaar ñëw jeewal ñëw ñëw Mbàkke Bari jël si sëñ bi waaw. bo sëñ bi nag daal fa jóge daal dem jeewal daal dem jeewal ba mu fa demee amee ba mu fa yendoo fanaan fa bët seet di li fa jógee daal di wuti wuti wuti wuti Louga ndar ba demee ba Louga nag foofa la ba saxaar ngoon moo ko fa jëlee yóbbu yóbbu ko ndar ndar am na fa juróom mu am fa maanaam weer ak fukki fan. moom la am ndar ñu jël ko fi ndakaar mu daal dem ndakaaru ba mu ndakaaru yi ñetti al alxames la fa jógee la fa dem alxames ajuma gaawu ñu ko ci bato jëmee ko euh, Conakry waaw foofu loolu mooy mooy tukki bi. léegi nag bagage bi nag bàyyi fi def bagage bii nag yàlla dogal na sëñ Murum Suba moo ko doon saytu waaw Dóoru Ndiaye ñu xëy ni ñoom ñooy ñooy sosoon barab bi ci sëñ Abdou Fall mba sëñ Daaru Asan taaw sëñ kii kii taawam mooy sëñ Abdou Fati Mballo sëñ Fallou Ndiaye moo ca topp sëñ Mbaye Fallou moo ca topp ak ku sëñ sëñ Abdou Khadir Ndiaye waaw ak sëñ Moudou Ndiaye Assane sëñ mbay Fallou sëñ sëñ Ousmane Ndiaye sëñ Moudou Ndiaye Assane sëñ Abdou Rahman ak sëñ Abdou Sakh moom ko defee nag sëñ Abdou Sakh nag ci la doomi señ Daaru yi euh, yem ci ay doomam sëñ Mbacke Awa Ndiaye moom moo moo moo yor barab bi bi mu demee sëñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye moo yor barab bii ànd kook ay njabootam bi demee sëñ Mbàkke fa Sylla moo yor barab bii bi mu demee sëñ Abdou Khadir njaay mi xëy nii moom sëñ Ousmane Ndiaye mii moo moo ko jur sëñ Ousmane Ndiaye mii moo ko jur moom laa àndal bokk nekk ci daara ji moom mii moo yor moo yor mooy mooy xalifa Daaru Ndiaye waaw ci ndigalam lañ ñu fi nekke bagage bi nag li fi indi bagage sëñ Touba bi lépp mooy bagage sëñ Touba waaw yim yooyu ci géej gi waaw moom la fi bàyyi bagages yi nag maanaam ay ay téere rek la def ak i ay téere ak am na ay ay benn xali xali ay maanaam ay ay daa ak waaye du amul ay yére amul kii waaye ay ay ay téere rek moom daana mooy alal sëñ Touba moom moo nekk ci biir barab bi. lu man fanweeri gaal daal lu war a mat fanweeri gaal ak yaar mi ngi fi fanweeri gaal yaar mi ngi ci biir néeg bi waaye yëpp ay téere la def sëñ Moudou Moustapha it daana wax ne bis bii. bisi la boo xëy ne képp ku yàlla may nga teew fi fanaan fi boo xëy la nga mel na nga juddoo woon ci bàkkaar dell na wax ne barab bi ku ko siyaare ku ko siyaare ah, ku dugg ci kër gi kenn fi duggaal ak bàkkaar ci kër gi waaw ku ànd ak sel daal soo fi duggee man nga rafet njortuñu ne jégg nañ say bàkkaar ndax sëñ Tuubaa moo wax ne wax li awaay yële si na daa moo bi xin matin wa ablu mara moo daa wax suñu borom ne ko ku nu ku siyaare nañ ko jégal bàkkaaram te faj aajoom moom sëñ Tuubaa moo ko wax wax li awaajil ah, waaw barab waaw barab mata siyaare la ndax sëñ Tuubaa ba ma xam ne aju ba mu ne diir bi mu fi bi mu fi jógee bi mu fi jógee nag ba mu demee ca tukki ba benn la fi ñëwaatee deeru ma naan la sanc bi mu sancee deeru ma naan juróom benn weer la fa am tubaab yi duural ko ne day daaj lay gànnaay Euh, am na ci foofu it mën na sa fa bañ a àgg ndax moom euh, xam nañ ko xamati ko xamati ko waaw ñu duural ko jëlee ko fi yóbbu gànnaar ba mu jógee gànnaar ñu jëlee ko fa yóbbu jolof gànnaar juróomi at la fa am jolof yanti at ñu jóg faa jëlee yóbbu njaareem njaareem fukki at ak juróom la fa am daal di ñibbi si Touba ci bis bii. waaw bis bii xëy ci la ñibbi si Touba wax nañ ne bis bi la boo xëy nii muy euh, isri na ma aram mu fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fi guddi mooy bis bi xëy nii sëñ Moudou Moustapha daa wax ne ku fanaan fii mel na nga ne da juddoo woon ci bàkkaar waaw waaw daxaar gi ngi daxaar gi mi ngi fi moom it taalibe yi jébbuloon ci moom bi sëñ Tuubaa ñibbisee njaareem jóge njaareem ñëw fii bu ñoom la àndal ba ba ci barab bi daqaar gi lañ wax ne foofu lañ dëkk loolu tax daqaar gi ñu di ko ormal bañ koo dagg waaw waaw waaw ay jinne jinne yi nag dañ koy laaj waxtu ne naan foo ñu nekk noonu nag fii leen mujj a gisee fu leen mujj a déggee loola lan ci mën a wax fii fi mujj a dégg daal garab yàlla ñuy mujj a dégg waaye gisuñu leen waaw ah, gis yoo ceegu dul la nekk nag waaye ñun gisuñu leen xëy na ñoom nag ñu ngi nuy gis waaw waaye ñoom nag ñu ngi nuy gis barab bi laa boo xam daal màggal gi daal képp koo xam ne yàlla mën na la ko daana ca bu njëkk daañu wax daal boo yoree benn bu bu képp jar nga jaay ko paase ko ñëw ci màggal gi waaw màggal gu mujj gi nag mooy màggal gi xëy ni ci la sëñ Tuubaa waxee ne ku màggal bisub tukkeem ba jaar nga añ nga am nga am nga yool ba mooy màggal gu mujj gi waaye màggal gii te Modou Moustapha moom moo koy defal wajuram ànd ko njobootu sëñ Tuubaa yëpp kon nag ñoo ngi sant yàlla di sant yonentu bi di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ak sëñ ak sëñ Amadou Muxtaar ak njabootu Daaru Xuddoos ak sëñ Abdou Khadir Ndiaye ak njabootu sëñ Daaru Assane Ndiaye noo ngi sant yàlla baax a baax a baax ñaan suñu borom defal ñu tawféex képp ku fi dikk suñu borom jéggal say bàkkaar ci barke sëñ Touba wasalaamaaleykum waaw waaw. jërëjëf yaay. taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mi Tafa wér ga newoon ca Moustapha gis nañ ko it ci mi itam Cheikh Moustapha mosula war. telum la wax loola la nar moom lun la dig faye ko bar kenn mësu koo gis mu bangawoon ca moo nekk ci mi tafa wir gëne gis nañ ko it ci mi moom lun la dig faye ko bar kenn mësu koo gis mu bangam